waaw njaay fleur bi de moom actuellement des fois mu dox des fois mu naqari ndax euh, dëkk bi moom instant yi bi neexut neexaay boo xamante ne xaalis amul moo tax euh, demewut noonu. ay Sénégalais Sénégalais presque euh, client tubaab moom daanoon nañ ko di am waaye presque léegi client Sénégalais la moo gën a bari. moo lañ gën a bari li ñuy am léegi. waa clients yi moom boo amee qualité fleur yu baax da ngay am client waaye nag comme li ma la wax nii e, e, njarte bi moom bariwut noonu waaw gàllankoor bi it day bari ci liggéey bi. bu ñu sukkandikoo ci floriste yi bàyyeekoo na mën nga wàccee ba lu ëpp fukki junni ci journée bi lépp ci façon garab bi nga jaay la dépendre. bëri na am na ay arbre fruitier comme ay cocotier bëri nañ fi ay euh, dattier am nañu aussi ay sapoti façon garab fruitier yu nekk daal am nañ ko prix sa ça ci taille bi rek waaw li si gën a bëri bu dee comme arbre fruitier yi nga xamante ne comme cocotier la euh, bu commencé mat un mètre cinquante dañ koy jaay cinq mille ba quatre mille cinq cent waaw bu demee ba ëpp noonu mën nañ koy jaay ba ba ba dix mille quinze mille waaw souvent souvent euh, euh, comme client yi maanaam comme cocotier yi yenn saa yi nga am terrain Bambilor wala wala kii boo bëggee garantie suuf mën nga ñëw jënd ci quantité bu bëri maire yi aussi maire yi maire yi dañuy ñëw xam nga jënd ci biir euh, kii def ci biir kër yi yooyu noonu. dañu jaay gazon. dañuy jaay ay fleurs intérieures ak fleurs extérieures yëpp dañu koy jaay. li ñu duppee fleur intérieure bokk na ci catégorie yi ñu gën a soxla. waaw fleur intérieure daal lañ gën a bari la ñuy gën a euh, jaay ndax xam nga kër yi léegi boo xoolee presque ay këri appartement ay espaces yi yaatuwut noonu. ñoom nag yemuñu ci njaayum fleur kese. léeg-léeg borom kër ñëw def këram bu mu pare léegi mu ñëw ñun dañuy dem déplacé wu dem xool gàlle bi. waaw après ñu def suñu suñu suñu plan xam nga defal ko défi comme ça lu ci war ñu jël plan ci ñëw defaral ko. weeru décembre la ñuy gën a gis seen bopp ci bile métier. no partir de mois de décembre décembre moom ba mois de août day neex quoi mais août ba ba ba kii ma affaire bi day taxaw. ñu ciy daj ay gàllankoor yu bari rawatina ci wàllum ndox mi. bu njëkkoon paa yi fi nekkoon bu yàgg ba ñoom ndox mu neex la ñu amoon parce boobu noonu kenn laalu suuf mais tuyau bi gars yi ñu gas di gasaat di gasaat suuf dafa dem bu ndox mi dafa toxu kiiwul ñun ay mini forage la ñu jéem a créer nii sax mais doxul parce que mini forage xam nga mënul passé napp bi waaw forage la ñu bëgg boo xam ne day dem ba toj kii bi nga xamante ne moo nekk kii ñoo am benn kii bu baax mais mini forage ak loxo lañ koy gas projet bi ah waaw souvent li gis nii sax dañuy dem banque ñu lebal ñu xam nga ñu su ñu def téeroo ak jënd mbuus dafa dafa ànd ak benn investissement boo xamante ne xam nga balaa nga ciy jot dafa dafa yàgg. waaw place bi souvent dañ ci am ay difficulté xam mais xam nga mairie bi ak ak Ageroute xam moo ñu moo ñu moo ñu ko jox ñuy liggéey par ndànk-ndànk. bilan bi comme kii rek sénégalaisement rek <laughs> waaw xam nga Sénégal moom xam nga nu muy doxee. journée bi ça dépend rek léeg-léeg ñëw moom jënd cinquante mille léeg-léeg client ñëw jënd vingt cinq mille waaw léeg-léeg nga. à partir de mois de décembre décembre moom ba mois de août day neex waa mais août ba ba ba kii ma affaire bi day taxaw. donte sax àdduna ngi dox production fleur synthétique bëri na lool waaye teewul ñoom loolu impacté wul dara ci seen activité wante problème ndox doon na lu leen sonal lool ci jamono jile.